imaam Mohamed Ndiaye nekkee ci réewum États-Unis di imam boo xam ne dafay taxaw ñi nga xam ne ñooy américains yi te nekk ci diine lislaam ci lépp loo xam ne war nañ koy xam mu jëm ci seenug diine jàngal leen alxuraanul karim ak xam-xam ak lépp lu ci aajowu te jii moo ñëwoon ci cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalifa général de mourides doon ko ziyaare si bi muy ñëw mu ànd ak Serigne Ahmed Saloum Dieng ak Serigne Abo Mbacké moom Serigne Mountakha Mbacké Bachir ak Serigne Alhaaji Ndiaye Cheikh Ndindi liggéey bu am solo bi nga xam ne moom lay liggéey ci réewum États-Unis lépp jëm ci diine lislaam leeral nañ ko Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou. di la Cheikh Mouhamadul Mountakha dellusiwaat nañ fi ànd ak suñu bi di jàmbaari lislaam Imaam Mohamed Ndiaye nekk ci réew Amérique euh, taxawal fa kuréel bu mag ci wàllu jàngale xam-xamu lislaam ci arab ak ci anglais taxawal fa jumaa ju rëy rëy suñu mbokk mii di El Hadj Ndiaye Cheikh nii di seddale ci ndax yoon mu bu ñuy dem Amérique dem na ba ci jumaa ji jullee fa euh, saytu daara ja daara ja mu liggéey baa ngi nii ay xale américain la fay jàngal ak xale arab ya fa nekk ak doomi sénégalais ya fa ne di sakku xam-xamul islaam bi mu fi ñëwee daaw it di nga ko waxoon daf ko dugg lool ndax da nga ne ko foofa daal moo jar a liggéey lislaam liggéey bi ngay liggéey yaa ngi ci da nga ci am ngërëmu am ci ngërëmu suñ borom ndax liggéey lislaam dëgg la te fa nga def dafa tuum ranke bi fi jógee daaw it ci la am xelu téere bi mu taalif ko suñ mag bi def ko ci laa ko àngale di ko jàngal tout tànk foofa ndax dañ daan def liggéey fa tasawuf liggéey fa lislaam ma ma nga tasaaroo na fa loolu nag sa nataal bi mu amoon ak yow daawit mu mandal nga ko ci ci tëj gi ne ndigal li fi la ko jëlee ak ak xalaat bi nga xam ne yow xam-xam rek moo la moo yitteel xam-xam rek moo la ñor bii ñëwee mi ngi ànd ak ay soppe ay mbokk taalibe sëñ Matar Fall mii nekk ci réewum Italie ak suñu jigéen ñi nga xam ne soobee dëkkandoo la ñu bi ñu yegee yoon bi ni ñoom mënuñoo ñàkk ñëw siyaar la nga ñaanal bu baax a baax a Imaam Ndiaye daal mi ngi mi ngi feddali coloré gi ak cofeel gi ak jàpp gi ñu ngi la ñaanal nga ñaanal ko ndax moom jàmbaar la lool mbokki taali bi eh, daayiri foofu lu ñu xewle mm-hmm. eh, da leen ubbil jumaam neen ñoo defe ko fii mm-hmm. bu leen luyee saal bu leen luyee bâche mm-hmm. lu ngeen def ñoo defe ko fii te duñ ci mbokk mi seede la kon nag yow mi fa demoon seede ñaari baat ci ayib la. macha allah ci li mu gën a ñor moom mooy li li muy wax jamono gi nekk. Mm-hmm. mu ñëwee siyaare si la daal. am na lu mu yëg ci yow loo xam ne. Mm-hmm. dolli na ci moom pësté boo xam ne. Mm-hmm. yàlla la ko seeral. waaw moo tax bañ fa nekkee la woon moom boo ñëwee Sénégal. sama jéego bu njëkk moom mooy siyaare. jërëjëf Mbacke jërëjëf du ñu guddal jërëjëf Mbacke ñu ngi dellu di sàkku sa ñaan rek di ñu ngi sàkku sa bu baax a baax ñu ngi sàkku bokk sa njaboot nag nga di sàkku nga njaboote nu itam waaw ñu ngi sàkku sa ñaan waaw duñu duñu guddal nag duñu guddal jërëjëf buñ ko bëggee rek ndax xam ne wóor na ma ne taxawaay bi jërëjëf donc ko bëggee ndax bi sell na ci lislaam jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf moom sëñ baa ngi ginnaaw bu mu ziyaaree sëriñ bi ba noppi am nay kàddu yoo xam ne yëkkati nañ ko leeral bu baax a baax ci nu mu gën a yaatoo liggéey bu am solo bi nga xam ne ma ngi koy amal ci réewum états waaye it cant gi nga xam ne amel na ko Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir ci dalal gi nga xam ne dalal na ko ci kër gi ak kàddu seede yoo xam ne amal nañ ko mu jëm ci imaam Mouhamed Ndiaye. bismillahi rahmaani rahim dañu ñëwoon fii tey comme ni ko defoon nag daaw imaam Mouhamed Ndiaye di jàmbaar lislaam nekk ci réew Amérique taxaw fa fondation Al Haq ñu bëri ci mbokk taalibe yi bu ñu demee foofa dañ dem ba ci jumaa ja dem ba ci daal di saafante moom. mu ñëwoon fi daaw nag gaaral Cheikh Mouhamadou Mountakha liggéey bi mu fay liggéey ci wàllu tasaare xam-xam ci làkku anglais ak ci wala ay ñu ngi ci ay arab wala ay doomi sénégalais na mbokk yoo xam ne nag diggante daaw ak bi ñu demee dem nañ ba ci daara ja visité ko bokk nañ suñu mbokk Alaaji Ndiaye Cheikh Ndindi mi nga xam ñoo bokkoon léegi bi gisee Sëriñ Mountakha bi mu ñëwee mu jox ko suñu abo Suayb mi nga xam ni njaboot sëñ bi la loxoom ngir mën a ñëw yeesalaat gaaral ko lam liggéey diggante daaw ak ren waaye wan ko yéeneem ci yéene liggéey bi fa bëgg a liggéey sëñ Muntaxa xamoon na ko ne sëñ maa ngi ci biir su liggéey bi sëñ Tuubaa ngi ci bi ndax sëñ Tuubaa dee lislaam kese te danga ci am tawfiix da danga ci am ndam ndax lépp lislaam la te leer na ci ñu nañ loolu nag moo waral jéegoom yi moo waral teewaayam fii euh, ñu ñëwoon rek saafantewaat ak sëñ bi sëñ bi ñaanal ko ba bu delloo gën a am ndam ci liggéey bi nga xam ne mu ngi koy liggéey kon nag imaam ci turu taalibe yëpp ñu ngi ñu ngi sant bu baax a baax ci jéego yi nga xam ne yaa ngi réew moomu di sant ci nga xam yaatal nga xam yaa ngi ko yaatal rawatina ci mbokk taalibe yi ba seen xew-xew yu bari ñu koy defee ci bërëb ba yal na yàlla mottali yal na yàlla leeral. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi nuyu uh, al imam uh, sëriñ Mouhamad Ndiaye di wëllare uh, di xarit di soppe di am mbégte dalal ko fii ci këram ci dëkkam muy Touba. si këram kër Cheikh Mouhamadul Mountakha eh, di ko dalal dalal bu yaatu eh, dalalub ab mbokk dalalub ab xarit boo xam ne bu bu màgg la ci ñun bu cher la ci ñun eh, ndax li waral loolu mooy bi yàlla dogalee xamante bi am ba tey dañoo gis ci moom ay màndargay jullit mm-hmm. dëgg-dëgg jullit ndaxte dëgg-dëgg jullit mooy ki nga xam ne li mu njëkk def mooy day sàmmonteeg al uxu al uxuwa al di ko dëgëral di fexe ba euh, luy dooleel euh, l'islam waaye luy bennale euh, jullit ñi te moom ku suivre ay activité am ku suivre ay njàngaleem dana xam ne loolu am na ca part bu rëy rëy loolu nag dañ ko ci sant te di ko ñaanal suñu borom defal ko ci tawfiq bu yaatoo yaatu te di ko ñaanal suñu borom sàmm ko te mission bi nga xam ne moom la nekk di ko dox te doxalu ko kenn ku dul lislaam ak ak jullit borom may ko ci ay ndam yaatoo yaatu te ànd bi suñu borom def mu yàgg ko ànd te lépp nag Euh, nekk loo xam ne dañ ciy dajeek ngërëmul suñu borom. Euh, ak ngërëm loo xam ne. bu yomal xiyaame day day diisal gann suñ ay balance loolu ñu la koy ñaanal di ko ñaanal ñu lay jàppale ci liggéey bi foofee. Euh, ca États-Unis kon daal sëriñ bi wax na la ay mbégteem loo xam ne dala ko waxal boppam ci biir mm-hmm. jërul ñu ci baamu waaye loolu day tegtal la rek ne am nga place bu rëy ci ab xolam ndax li waral loolu mooy moom li muy jàppe nit mm-hmm. mooy koo xam ne dafa xam ne mission wu lislaam yi mhm. ñi ko yanu ñëpp mhm. ngir dëgëral lislaam ak mhm. benn la jullit ñi rek mu jiitu ci seen ay yëngu-yëngu te yow xam na na ci loolu nga nekk loolu moo tax ku suivre say activité comme ni ma ko waxee sànq dana gis ne ku fonk cheikhul xadim nga mhm. te li tax nga fonk ko mhm. mooy da nga ko jàppe ci kenn ci jàmbaari lislaam yi yu mag yi waaw loolu loolu xam nañ ko day reflété wu toujours ci sa ay mhm. discours ci sa ay euh, say sa say déplacement ak lépp loolu moo waral nga jógee réew ba réew ngir ñëw fii kon loolu ñu ngi la ci sant bu baax te di la ñaanal borom dëgëral la sàmm la yokk sutura si ak tawfiix si mission bi nga àggale ko fu kawe kawe waaw jërëjëf waaw li ñu bëgg a wax lépp temps bi du ko mat ay kàddu seddal rek waaw jasakumullah xeer wa rahmatullahi wa barakaatu euh, ginnaaw bi ñu sant suñu borom ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, di am mbégte lool delluwaat euh, fii tey ci tuubaa di dëkk bu sell ndege ni daaw ñëwoon nañ fi Euh, gisanteeg euh, suñu kilifa suñu sëriñ suñu wayjur euh, mu ñaanal ñu jox ñu ndigal wax ñu ni liggéey bi dafa ngeen koy defee fa la ëppee solo ren nag ñu dellu si ñëwaat ba ci moom ndax boo duggee ci kër nanga nga nuyu borom kër ga ba noppi moo tax ñu njëkkee fii ci Touba njëkkee ci suñu sëriñ suñu kilifa. Euh, tàllal ko suñuy loxo euh, sàkku ñaan ci moom sàkku ndigal ci moom euh, ngir liggéey bi ñu mën ko mottali fële ci Amérique incha allah ñu ngi dolliwaat di gërëm sama xarit sama soppe Serigne Chouaib di doom ci Serigne taxa moom dañuy jokkoo saa su ne di sama wóllëre sëñ Ahmed Saloum moom amuñu fayam yàlla na ko yàlla fay ndax saa bu ma fi ñëwee moo fi samay tànk moo fi sama bunt mooy sama lépp jazakumullah xayr ya cheikhana waaw loolu daal la ñu amoon luñ ci sànni ci ay kàddu bañ a rek waaye jërëjëf